dafa wax ne kuy doon ci cër moom mënta weesu doon ci benn ci cër yi nga tudd fii kuy doon ci cër moom du mën a génn juróom benn yooyu genn wàll mën naa am taar mën naa am ab ñetteel muy sulus mën naa am ñaari ceer muy sulusaan mën naa am muy ñeent ak sudus ab juróom benneel ak tumun tumun mooy ab juróom-ñetteel maanaam bu ñu defee àll juróom-ñetti xaaj xaaj bu ca nekk tumun la mu wax nag cër bu ci nekk ñenn ñoo koy doon ñu wax ne nisif muy cërub genn wàll maanaam xaaj àll ci digg ba mu jël benn xaaj ba wala muy nisif juróomi koy doon jëkkër su fekkee ne doom amut sët amut kon la soxnaam bàyyi ku ko def ñaari xaaj moom moom benn ba te soxnaam bàyyee doom ba sët nag daañu ko wax léegi balaa yàgg day dem kon ca kaar génn ci nisif su ko defee nga ne doom bu jigéen boo xam ne ki faatoo ko jur dëgg-dëgg wala sët bu jigéen boo xam ne doom ji góor yi ki faatoo ko jur ak mbokk mu jigéen moo xam ne daa bokk ak kafaatu ndeeg baay ak mbokk mu jigéen mu bokk ki faatu baay dong ñeent ñii koo ci xam ne wéet nga di yow rek genn wàll ngay am boo ko boole jëkkër nag kon mu juróom ñi nga xam ne doon nisif mbokk ci wàllu yaay dong moom waxoon naa ko daañu ko waxaat ab juróom benneel bu dee benn ab juróom benneel lay doon bokk ci ñi doon genn wàll rubuxu ñu koy wax kaar rubuxu mooy nga def ñeenti xaaj mu tegg benn ñaara koy doon muy jëkkër ak jabar rek jëkkër moom fa muy doon ne kaar mooy bu fekkee soxnaam si faatu bàyyi na fi doom mbaa sët mbaa sëtaat soxna nag muy jabar fa muy doon ne kaar mooy bu jëkkëram faatoo te bàyyiwul doom bàyyiwul sët jabar moom ab kaar mu ëpp ci donoom maanaam fa lay gën a bari leen laa bëgg a wax ndax mooy bu jëkkëram faatoo te jëkkëram ji faatu bàyyiwul doom bàyyiwul sët duñ seet ba xam nag moom la amal doom ja baa keneen la ko amal te comme doomu yoon la rek moom dana ko yàqal moom jigéen ji kaar ba daañu wax boobaa la lay am waaye bu dee doomu njaalo nag moom lu yàqal soxna si mu am kaar boobu soxna moo xam kenn la moo xam ëpp na kenn su jëkkëram faatoo waaye bàyyi na doom ba sët foofu la soxna say gën a néewlee wàll mooy ab juróom-ñetteel lay am alal jëpp buñ ko defee juróom-ñetti xaaj benn ba lay am bu dee kenn bu ñu ëppee kenn ñu séddoo ko yemoo ca nga xam ne kon sumun moom kenn rek koy donn muy soxna soxna nag mën naa lii mu ëpp kenn ba ci ñeent dafa am ñeenti jigéen ñoo waxoon ne kenn ku ci ne bu wéetee di kenn genn wàll lay am te mooy doom bu jigéen dëgg-dëgg ak sët bu jigéen bàyyi ko doom bu góor ak mbokk mu jigéen bokk ak kafaatu ndey ak baay ak mbokk mu jigéen bokk ak kafaatu baay dong ñeent ñi ku ci wéet daal di am genn wàll waaye ku ci li mu ëpp benn rek ñu daal leen di boole sulusaani ñaari ceer jëkkër moom mënta li mu danga koy tegtee moom waaye ku faatu bàyyi woon ñaar doom jigéen mbaalu ko ëpp waaye góor raxu ca dañu am sulusaani ñaari ceer ñaari ceer nag bu dee ko séddle ci saam moom bu defee ñetti saam ñaar ya mooy doon sulusaani bu dee nag ko séddle ci calcul moom su calculé ba ne lii moo tolloog benn ceer da koy multiplier deux def ko ñaari yoon mu daal doon sulusaani sët yu jigéen yi ndegam rek mat nañ ñaar jëm ca kaw te sët bu góor raxu ca dañu daal di am sulusaani boobu mbokk mu jigéen mbokk mu néew bi ndey ak baay sulu kenn xanaati ñaar mbaa mopp ko ba tey ñu boole leen sulusaani mbokk mu jigéen ci wàllu baay it bu ma tee ñaar jëm ci kaw ñu boole leen sulusaani bu góor amee nag ni ki kooko bàyyi góor ak jigéen wala mu bàyyi sët yoo xam ne am na góor am na jigéen wala mu bàyyi ñu mbokkal ndey ak bàyyi ñoo xam ne am na góor am na jigéen wala mu bàyyi ñu mbokkal bàyyi dong waaye am na góor am na jigéen yooyu yépp dañu daal di def séddoo góor ñaar jigéen benn li ki bu doon benn doom bu góor benn doom bu jigéen da ngay jàppe góor ga ñaari jëmm yu taxaw dal def ñetti saam alal ja góor ga moom ñaar ña jigéen ja moom benn ba boo déggee góor ñaar jigéen benn rek mooy loolu fulus te mooy ab ceer ñetti xaaj mu tegg benn moom ñaara koy doon ndey ki jur ci faatu bu fekkee ne doom joojee faatu bayiwul doom bayiwul sët bayiwul lu mat ñaari mbokk kon yaayam ab ceer lay am su fekkee nag ki faatu bàyyi na doom mbaa sët mbaa lu mat ñaari mbokk doon sax mbokk yooyu duñ doon te tey ñu yàqale yaay ja ba du amati sulus su boobaa daañu wax lan lay am mooy sudus ab juróom benneel ba mu des nag yaari masala yoo xam ne moom tudd ko fii mel na ne mooy masalam jëkkër ak ndey ak baay ak masalam jabar ak ndey ak baay foofu day moom ndey ja du fa am sulus bu mat maanaam ceer bu mat déedéet dafay am sulusul baax yi da nga ko jàngaat ci beneen téere bu fekkee jàng ko woon ci beneen téere waaye ku bokkut ñaari masala yooyu rek ndegam doom amut sët amut lu mat ñaari bokk amut kon yaay dana war a am sulus mooy dafa amal ñetti xaaj mu moom benn ba nga tekki nag mbokk ci wàllu yaay bu ñu limoo mbokk ci wàllu ndey bu dee menn rek moom da nga ko gis lee ci kanam te waxoon naa ko it ab juróom benn lay am waaye nag bu ñu ëppee kenn ñaar jëm ca kaw dañ leen di boole ak sulus maanaam alal jëpp ñu ko defee ñetti xaaj jox leen benn ba ñu séddoo ko te yemoo ca ñoom duñ def góor ñaar jigéen benn ñoom dañoo gaaw a daanu mbokk ci wàllu yaay moom balaa doon day fekk ka faatu amut ku mu jur amut ku ko jur su fekkee ne baay am na wala maam ju góor wala maamaat ju góor kon mbokk ci wàllu yaay du doon ba tey bu fekkee ne doom am na moo xam góor la moo xam jigéen la wala sët am na moo xam sët bu góor la ba jigéen la te bàyyi ko ci doom bu góor rek mbokk ci wàllu yaay du doon mbokk ci wàllu yaay moom balaa doon day fekk kookee faatu bayut baay mbaa maam ju góor jëm ca kaw bayut doom mbaa sët mbaa sëtaat jëm suuf bul ju mukk nag ba defe ne mbokkum ndey ak baay dana daaneel mbokk ci wàllu yaay bu nit faatu woon bàyyi ko mbokkal ndey ak baay bàyyi ko mbokkal ndey dong bu tax nga defe ne ka bokk ak moom ndey ak baay day daaneel ka bokk ak moom ndey dong xëy na sax boo jàngee masalam yi wax al mushtaraka wala al mushtarika da nga gis ne mbokk yi ci wàllu yaay ñoo moomoon dono ba ñu féete ca ndey ak baay naroon a ñàkk ñu far leen boole seeg ñu bokk moom ndey dong ba ñu bokk séddoo cër ba su dus moom moo ci ëpp li ñu koy donn moom juróom-ñaar a koy donn man ngaa njëkk ñi ndey ak baay ndey moom bu fekkee ne doom am na wala sët wala lu mat ñaari bokk day bàyyi ceer ba nga waxoon ñëw ci sudus baay itam su doom xasee am rek moo xam doom ji góor la moo xam doom ji jigéen la moom bàyyi sudus moo di ab cëram day def nag bu doom ju góor amee moom bàyyi du mën a weesu sudus ab juróom benneel te nag bu doom bu jigéen amee ñu joxe cër mu desit ñu delloo ko des wa maam ju góor itam sudus lay donn muy ñett ku bokk néew bi ndey dong moo xam góor la moo xam jigéen la waaye kenn rek la moom sudus lay doon muy ab juróom-benneel bi nga tudd noonu su sët bu jigéen amee bàyyi ko ci doom bu góor nekk faak doom bu jigéen boo xam ne ki faatoo ko jur kon doom bu jigéen ba dëgg-dëgg day am genn wàll sët bu jigéen boobu bàyyi ko ci doom bu góor nag ab juróom-benneel muy sudus lay doon ba tey ku bàyyi mbokk mu jigéen mu mbokkal ndey ak bàyyi bàyyi mbokk mu jigéen mu mbokkal bàyyi rek jigéen ca bokkal moom ndey ak bàyyi day am genn wàll mbokk mu jigéen mbokkal moom bàyyi dong am sudus ab juróom-benneel boo leen teew daañu leeral ne doomu jigéen ñi bu ñu ëppee kenn boo jël sulusaani kon sët bu jigéen ba bi ñu am toog sët bu góor dañuy ñàkk duñu am dara foofu itam ñoo bokk moom ndaag bàyyi tey jigéen bu ñu matee ñaar mbaa ñëpp ku ba am sulusaani nga bokk moom bàyyi tey jigéen bu ànd tëg góor day ñàkk nga tekki nag maam ju jigéen ci wàllu ndey ak maam mu jigéen ci wàllu bàyyi ñaar lu ñu waaye ñoo yemoo lu ñu donn kenn ku ci ne ab juróom-benneel ngay doon maam jigéen jur ndey ndegam day nekku fa dana doon am ab sudus maam jigéen jur bàyyi ndegam bàyyi nekku fa dana doon jël sudus buñ tasee ñoom ñaar nag te yemoo daraja nga xam ne kee dafa jur ndey kee jur bàyyi kon ñoo yemoo daraja kenn gën ci jege sa moroom dañ leen di boole benn sudus ñu séddoo ko ca digg ba waaye duñ jox kenn ku ne sudus su kenn ka gënee jege moroom ma nag ni ki kee di maam dong kee di maamaat nag foofu mooy am teqale ki féete ci wàllu ndey moom mooy josaan ci donn su fekkee moo gën a sori nga xam ne maamaat la ka féete ci wàllu baay gën koo jege itam nga xam ne ka féete ci wàllu baay maam dong la ki féete ci wàllu yaay nekk maamaat du tee ñu séddoo ko yemoo ca képp waaye nag ki féete ci wàllu ndey moom ndegam boorum cosaan ci doon su gën a jege doon maam rek te féete ci wàllu baay doon maamaat kon ki féete ci wàllu ndey moom rek mooy doon am na foofu teqale doon day ñaari xaaj doon ci cër ak doon ci asabaal doon ci cër mooy koo xam ne juróom benn cër yi ñu tudd te alquran andi leen ku ca doon rek day doon ci cër koo xam ne nag doo doon ci benn ci cër yi boo fa nekkee yow dong jël alal jëpp boo fa nekkee borom cër xaar ba cër yi génn nga jël des wa loolu mooy tudd doon ci asabaal ñi koy def daa bari jàppal ne doom ju góor foo ko fekk moom lay def sët bu góor foo ko fekk moom lay def ka bokk ak néew bi ndey baay tey góor mbaa baay tey góor ak seeni doom yëg yooyu góor noonu la ñuy def baay bu ndaw ak mbaa baay bu ndaw loolu la ñuy def maam ju góor nag moog baay daañu koy def waaye dadul saa yu nekk nga xam ne baay dana koy def dana koy ñàkk a def maam ju góor dana koy def dana koy ñàkk a def ndax baay ak maam ju góor ñoo amoo ci bu doom bu góor amoon baay du mën a weesu sudus maam ju góor it du mën a weesu sudus te nag bu fekkee ne kooka daa faat bàyyiwut ku muy baay baay ba lépp lay jël su fekkee bàyyiwaat ku muy maam ju góor it maam ju góor lépp lay jël baay ak maam ju góor it ñoo amoo ci ndegam doom bu góor amut sat bu góor amut waroon bi ci rekk am bu leen joxee seen cër ñu téye bu desee dañuy jël desoo donn ko ci asabaal ngulingaana mooy koo xam ne yàlla da ko defal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen te defalu ko leneen lu tax ñu mën koo àtte ne góor la mbaa jigéen la ki saxul sikkim saxul ay waan amul daal menn màndarga muñ ko mën a àttee ci góor mbaa jigéen kooku mooy ngulingaana bu amul màndarga bu dee ci benn dañ koy jox genn wàllu cëru góor ak genn wàllu cëru jigéen mooy dañu tëral masalama te jàpp ko muy góor seet ba xam buñ séddalee noona wàllam nu muy toll dañu tëralaat masalama jàppee ko muy jigéen xool ba xam nag ci bindee jigéen nu wàllam di toll suñu boolee nag yaari wàll yi mooy lañ jàppoon ne bu doon góor moom lay am ak lañ jàppoon ne bu dee jigéen moom lay am bu ñu boolee yooyu yaar xaaj ko ci digg ba jox ko nag benn xaaj ba nga xam ne kon jël na genn wàllu cëru góor ak genn wàllu cëru jigéen nga far andi fii ci ak gàttal su ngóoraana amoon naa def ba jox ko genn wàllu cëru góor ak genn wàllu cëru jigéen manees naa misaal rek ñaar ñuy doon kenn ka nekkoon góor bu wér kenn ka nag di ngulingaana boo xam ne mën ni ko àtte ci góor wala jigéen ñu ngi ay doom ca kafaatu kon da ngay seet boo jàppee ñaar ñépp góor nooy séddalee kon ñaari xaaj lay doon kenn ku ne tegg benn boo jàppee nag ngulingaana bu muy jigéen kon ñetti xaaj ngay def góor ga tegg ñaar jigéen ja tegg benn dañuy xool nag bi nga seetee ñuy ñaari góor te séddale ba doon ñaar ak bi nga seetee ngulingaana ba di jigéen tam nekk ñett ñaar ñett nuñ defante mooy ñàkk déggoo li ñu wax tabayun nga jël kenn ci multiplier ci kenn ka deux fois trois six wala trois fois deux six six yooyu nag nga dellu ko multiplier waat deux ndax dañuy jàpp ne su benn ngulingaana amee yaari mbir rek moo ci am mooy mbirum jàppe ko góor ak mbirum jàppe ko jigéen six kon ba muy ñaari yoon douze lay doon fukk ak ñaar fukk ak ñaar nag nga seet boo ko séddale ñaari góor ci jàpp ne ngulingaana bi góor la lu ku ne am kenn ku ne kon juróom benn lay am nga seet nag fukk ak ñaar boo ko séddale ci jàpp ne ngulingaana bi jigéen la lu kenn ku ne am ngulingaana bi ñeent lay am góor ga dëgg-dëgg am juróom-ñett ñaar cala ko kon ngulingaana bi boo seetloo wàllam ci seetle bu jëkk bi juróom benn la woon boo seetloo wàllam ci séddalib ñaareel bi ñeent la nga boole ñeent ak juróom benn muy fukk nga jox ko nag xaaju fukk muy juróom ka nga xam ne góor la dëgg-dëgg itam ñoo bokk àtte da ngay seet lam amoon ci seetle bu jëkk ba muy juróom benn ak lim am ci séddale bu mujj bi muy juróom-ñett nga boole juróom-ñett ak juróom-benn muy fukk ñeent moo bi nga jox ko genn wàll ga te mooy juróom-ñaar boo boolee nag juróom-ñaar yi nga ne ki doon góor dëgg-dëgg moom lay am ak juróom yi nga waxoon ne moom la ngulingaana bay am ba daal tolloog rek fukk ñaar yi nga waxoon ne lépp lépp moom la woon ba nga koy séddale dana am rekk ci misaal bu doon benn ngulingaana ak genn góor ndax li muy faral di am baroot waaye bu doonoon ñaari ngulingaana wala ñëpp ko jëm kaw la wax ji gën a bari lool lool ndax kon day daal di bari ay lijjanti